aousubillahi mina seytaan rajim bisimilahi rahmaani rahim mbokki jullit yi mbokki taalibe yi mbokk yi safoo jamono ñu nekk seen télévision Touba Argentine TV ñu ngi leen nuyu di leen ziar seen mbokk Ibrahima Fall Tomou Del ànd ak équipe bu technique bu yaatu bi nga xam ne si ni jamono ñu nekk seen mbégte rek moo waral sunu farlu mu nekk waa Touba Argentine La tey ji ñuy mel ni màggal gi neexee na fépp nag waaye boo xool da naan fii la daaxee te loolu dina ci doy firnde bu ndee ba ci biir waan bi leen wanee berne yëpp ak ya caaju kon bu ko refee rek da may topp ma ànd ak sama cameraman dugg présenté li nga xam ne moo fi jot jamono jëne teme kon bu ko defee rek damay ànd ak sama cameraman euh, kon bu ko defee rek euh, mbokk yi nga xam ne jamono ju nekk euh, yéen ay topp di safoo li nga xam ne mooy télévision Touba Argentine TV mu mel ni yéen a gis berne yi waa Touba Argentine La Plata bi di jës bu xulub nañ defee seen préparation ngeen gis pour yi nga xamante ni moom lañ waajal pour gan pour nasaraan yi mu mel ni jamono ju ne tembe bàyyiwuñ dara nga xel xeetu ganaar yi nga xool maanaam mbisu yeeg yëpp mel na ni bàyyiwuñ dara mu mel ni magal gi daal mel na lool nga xool soble seeg ni ko soxna yi maanaam pëseef bi rek ñu ko jox maanaam Serigne Touba dañ naan amul amul gi dafa mel ni tey jii nekk boo xoolee frigo a na ubbi sax mën naan doo ubbi te bu mbokk taal bay mënoon espace sax ngeen ubbi ko ngeen xam ni tey jii Touba Assane La Plata gàcca ngalaama wanati nañ seen bopp lii may wane ku tedd wut maanaam boo xoolee ni liggéey bi di doxee tey jii boo mbokk taalibe nga dox si nii ma ànd sama caméraman mu mel ni mbokk taalibe yi bu ko dama leen ñaan rek après ngeen mën maa ubbil frigo yi bu ma mën a mbokk taalibe yi xam ne moo fi nekk ci naan bëri na bëri waaye goo xam ne sax da nga naan ñii iske rek euh, dañuy màggal rek da nga naan ñii luñ sangoo lañ bëgg wala dara wala luñ gàmmu ëllëg mais da nga naan naan gii du parce que jus de yi jus orange yi mel ni tey jii dara jeexul mel ni nga xamante ni ñoo doon xeex tedd gi kenn déggatu leen te Serigne Touba jamono yooyu maanaam mbiram day gën a leer kon bu ko defee dañ lay présenté soxna yi xool soxna yu baax a baax li euh, nga xam ne noonu la seen mbir yi na jamono ji fépp a fees fépp occupé ba sax foo saan lay mu tax fi ne fépp fees na dell bu ko fayee danañ dugal danañ leen dugal ca waañ ba deuxième cosinan bi bi mooy premier cosinan bi fii la jigéen ñi nekk góor yàlla itam ñu ngi ca biir ndax euh, kon bu ko defee soxna si ñu ngi lay nuyu la ziar maa ngi leen di fay di delloo ziar bu baax a baax euh, tur bi naka la sant wi Maguette Fall Maguette Fall mbokki Sénégal mbokki Sénégal euh, foo dëkk Sénégal Ngaay mel ne Maguette Fall tey jii yaa ngi ci La Plata daara bi di jës bu xulub uh, nekk ci wàccaay màggal wàccaay bu am solo bu bëggoon a xam maanaam xeetu berne yi ana nan ngeen ko préparé ak ni mu jaara yoon yi macha allah. macha allah lépp jaar na yoon kontaan parce que dara dara manqué ko fii gis na lekk yi naan yi macha allah ñu ay taaliba cheikh la ñu ñëw fekk suñu moroom yi murut dëgg yàlla. lépp daal jaar na yoon. macha allah dara manqué wu fi nag. xeetu a ngi fi. allah macha allah xeet lii añ la ko pëtëri boobu añ. añ en général ay ceeb lañ daan gis ak ay mais gis nga tey noonu dafa ay michu baax pour añ macha allah dara manqué wu fi. waaw mel ni jamono ji rek gars yi da naan yàpp ceeb mais mel ni fii dafa mel ni yàpp uniquement lépp yàpp macha allah. soo xoolee palaat bu ne gis nga palaat bu ne benn nit la. macha allah palaat bu ne benn nit xam nga kon dèjà nii la woon ci xeetu sant ci xeetu berde macha allah soxna si baax a baax si Touba Argentine TV ñu ngi lay jaajëfal bu sa doomu ndey mu nekk moom it ci waañ moom it mu des macha allah mu ngi la ornation macha allah soxna ñu ngi lay nuyu. waaw ñoo sant bi. maa ngi tudd Ami Collé dëkk. fan ci Sénégal. Euh, Dakar Pikine Tali bu mag waaw. Euh, dëkk Buenos waa waaw gis nga ko léegi xéewalu sëñ Touba gi macha allah wax dëgg yàlla ñuy soldaaru man a sama raq ji di ay taalibe cheikh nag piir waaye nag xam nga rek sëñ bi moom liggéeyulul tiijaan liggéeyulul murit képp ku naan ashhadu an laa ilaaha illallah rek sëñ Touba liggéeyal na la ñu ñëw tamit ñu ni lu def suñu ñaq suñu doole lépp ci bés bi ndax sëñ bi jar na ko macha waa màggal gi gis nga ko spécial daal moo ngi nii gis nga ko ay ceeb lan daan defar ngay nii na ko xooñ ko lu ne waaye berneeru sëñ Touba moo lay war ni chaque fois day yokk day yokk ci lépp waaw ji yokk ci nit ñi di yokk ci xel yi ji yokk ci lépp moo tax tey jii gis nga dañu génn fii rek en général màggal gis nga ko lii reer nga ko daan gis waaw waaye tey nag ñu néew rek def suñu lu baax def suñu michu yi rekk yu baax xar yu baax ginaar wax dëgg yàlla defar ko soldaaru sëñ baabakar nekk ci waañ bi ñu tuddee ko maam Khalifa mu lakk lépp xamalu ko mu mel ne fii tamit ràññee fi taalibe Cheikh bi ak taalibe Serigne Touba mel ne jafe na loolu mel ne lépp mooy dërëm bi gënul gaal gi kon mel na ndigal yi sëñ Sidi Muxtaar waxe woon joxe it ni la frigo yi mel ay leeral ci frigo yi nekk si biir ak yooyu xeet waaw macha allah frigo yëpp a fees lépp mën nga ñu ko ubbil wan ñu ci tuuti ñu mën ko xool ndax ñu mën ko présenté suñu mbokk yi nga xam ne jamono ji nañu safoo télé bi ndax mën nga ñu soow sax allah mu mel ni xeetu naan yëpp jamono ji moo ngi fi ngeen xool salade de fruits ngeen xam ni euh, sunu mbokki nasaraan yi nga xam dañ leen di invité ñoom it dañ koy bëgg lool macha allah mel na ni bépp xeetu naan it mu ngi fi nga xool ñi nga xam ne si ni euh, ndox yi nga xam ne keneen am na ñoo xam ne bëgguñu suukar yëpp bagage yooyu yëpp mel ni préparé ngeen yëpp macha allah mu mel ni lii moom macha allah ala doome la lool macha allah. macha allah kon bu ko defee rek dañuy jàll ci góor yàlla yi ndax Baye Fall yi tamit liggéey bi lañ bokk dina sori de. léegi kon bu ko defee rek dañuy tàbb si biir waañ mel na ni jamono ji Baay Faal yëpp a ngi si biir waañ bi. Euh, ñu dem a xool góor yàlla yi ba xam nan lañ préparé li nga xam ne mooy 18 safar bi comme ni ko Serigne Touba bëgg woon euh, ndax Serigne Touba la wax nu mag ñi nee li dala woon ci ginaar ba ci gëléem lépp lu waaye am na ma ko santalee ndax lépp lu ma am ci bis amee mu mel ni ginaar yaa ngi nii xar yaa ngi nii mel na ni dara jeexul macha allah nga xool yi xeetu ginaar macha allah yi xam ne bu ci nekk dana peese lu mat ay 5 kilos macha allah mbokk taalibe yi euh, mën cee dajale lu bëree bëri boppu Pastef ak boobu takk euh, mbokk taalibe yi danañ ci leer leer bu baax a baax kon kami sunu caméraman dana leen gën a leeral affaire ngeen gën koo xool macha allah ngeen gis ni Touba Argentine La Plata seen daara bi josu xulub ren euh, wane na boppam bu baax a baax a baax ci lii di liggéeyal Serigne Touba kon ne desul benn ginnaaw kon jëwrin ñu ngi lay laaj yow nooy dundee ah, mbir mi dëgg-dëgg jamono ji tembe ak kontaan gis nga fi ma nekk xam na ëmma taatoo waaye nañ am am interview bu yàgg dama ni gars yi bool yi na murite ñeent ak bool te nañ ko ci gàll ba mu diis dooleel bu mu fi am de maanaam xar yi doy na ginaar yi doy nañ ko ba mu trébiyee màggal gi màggal gi alxuraan bi def nañ ko pare jàng xët di ci def mooy bernde bi lekk ngeeg naan gi na neex mais jëwriñ ñu la doon laaj maanaam environnement lu mel a taxawele macha allah ci bis bi ba lépp mën a jaare te xam ne maanaam suñu xëy yëpp dañ ko war a jox sëñ sëñ Tuubaa te boo xoolee maanaam at mi boo ci jëlee maanaam ay quelques jours rek jox ko ci Serigne mbooloo fu ndaje mën nañoo taxawal lu gën a garaaw lii kon naam dara maanaam ñun suñu dund ak suñu dee Serigne kon li ñu liggéey lépp Serigne Touba ko ko jël suñu yitte jëpp def ko ci ba maanaam ni mu ko santaane ñu defe ko nu mel noonu xaj na sax maanaam ni am ci du doy day xam ne mooy majorité ko ngeen xam ne mooy jëriñ Modou Moussa Fall jamono ju nekk mooy kërse lépp loo xam ne moo jëm ci wàllu daara bi waaye nag duñ sëñ Abdoulaye moom it du ci des benn yoon a ñu ngi lay laaj euh, fan nga nekk bu nekkee ci waañu jamono ji lan la yëg ndax lu ñu yëg nag képp kuñ ko yëgaloon mënoo ko yëg loo yëg jamono ji

tedd bii nga xam sëñ bi sant leen ma rek la wax ñu koy sant ñun ñëpp nag boole kenn ku nekk joxe saw ñàq ba pare di si ñàqaat di si boole kon ñu jàpp ko dafa yombul waaye nag bu la boolee si ay mbiram pour ko kon defe naa ne kon texe nga kon waaw di kontaan si mbooloo mi nekk si ñu ñëpp nag waaw masala bu mel ni xar yi ginaar yi takk na loolu ndax mën nga ñëw fàttali lim bi ñu mën a xam limu ginaar yi ak limu xar yi fan la toll ci lim bi noo ko mën a takkee xar yi moom ñoo ngi jëndoon li 30 xar waaw ginaar yi ñoo ngi jëndoon daanaka cent yi lii moo ko manqué dix moo ko manqué waaw. kon ñu bëggoon xam yéen ba ngeen dalee màggal fii ba tey euh, ñaata at lay tollool ci at yi ñi ne naan juróomi at ñi naan juróom-benn at ñu bëggoon nga indi ci ay leeral baax a baax ak yéen euh, différence nga gis dal bi ngeen dalee màggal fii ak léegi ñaata at ak euh, différence bi laa bëggoon nga wax ñu ko dëgg-dëgg waaw man de yaakaar li ma jàpp moo juumul ñeent at waaw wax dëgg yàlla ban ko dalee màggal ba léegi wax dëgg yàlla yokkute lañ si jëf seen bu jëm bopp ndax ban fi door a ñëw taxawul ko woon daayira dëkk metti woon na lool wax dëgg yàlla waaye bi ñu taxawalee daayira eh, àndandoo ñii liggéey fii ñii di liggéey fii def na ni boobu ba léegi jàmm lañ am ñun ñëpp am nañ jàmm kenn ku nekk defe naa ne tey jii li nga man wut bokkut ak démb waaw gën na fa métti nag waaye tey ji yaakaar naa bi sëñ bi bi ñu commencé liggéey sëñ bi fii dëkk bi bon leer nañ ñoo ngi liggéey liggéey gu wér ba kenn ku nekk di sàmm saw ñàq def naa ne kenn ku nekk yaa ngi yëg a baax kon dara nekk liggéey sëñ bi waaw kon ñëpp nañ takkandoo àndandoo liggéey sëñ bi lépp loo xam ne bay nañ ko waar si sas mu nekk dëkk bi képp ku ne mu rek nga fexe see taxaw taxaw gu wér xam ne loo def ren bu déwénee da nga yokk waaw di ko ñaax mbokk taalibe bi yëpp waaw kenn ku nekk jéem see taxaw waaw ndax gis nga am na ñoo xam ne tey ñoo si waañu tey mën ah, kenn ku nekkoon jéla fexe la bay sa waar nekk ndax defe naan ay kenn ku nekk yaa ngi taxaw ngir liggéey sëñ Tuubaa kon buñ liggéey sëñ Tuubaa buñ ñaan yàlla kenn raw ñu si gi nag fépp la neexe mel nag booy xool da naan la plata gi la daxe euh, waaye nag jamono ju nekk dañ leen di wan lépp loo xam ne ruusa fi rek incha allah ànd ak ñi nga xamante ni si ni euh, ñooy suñuy berne ñooy berne ku mel ni ñoom Baye Fall ndax yoonu murid euh, fépp fu ñu ne berne rek bu ne Serigne Touba gars sax dañuy wax léeg naan euh, Bamba ji Mbàkke laak Fall muy wér lu wér ndax boo xoolee fii da naan Baye Fall saf ñoo fi ëpp ndax lépp rek bëgg bis mi nu a a ndax mbokki taalibe gën a xam ana la la waat la di doxalee seen mbir kon bu ko wan li nga xamante ni si ni jamono jël teeme moo fa jot a mbokk taalibe yi nañ fa nekk ak nan la ñu dundee li nga xamante ni si ni mooy xéewal yi bu defee rek dañuy ànd dugg ci li nga xam ne mooy salle bi waaw toog yi ko yëgee kon bu ko defee rek dañuy dugg jéem a xool mbokk taalibe yi jéem a tàbbi seen biir jéem a xool ñoom ana naka lañ dundee nga xamante ni mooy bis bi jamono ne teemee mu mel fekk mbokki taalibe yi jamono ñu ne teemee ñoo ngi ñu bëggoon a xam Baye Fall yéen ana na ngeen yëgee xéwal geeg mbokki taalibe yi ak maanaam ban yëg ngeen ci am macha allah waaw sant xanaa sant bu baax a baax de ak sant ko borom bis bi daal moom boo gënoon a yëkkati kàddu yi ñu jël bu baax a baax waaw sant daal ak sant borom bis bu baax a baax a baax daal waaw ñu teew ñu ko teew ren daal daal waaw ndax Seex Xaadim moom li lépp moom la daal ndax mu ne kon moom kon daje fii moom di defari xéwal kon moom ba di ko tal daal du am daal xéwal yi daal lépp jaar yoon yow daal gisoo ci benn sikk macha lépp man da baat si télévision Touba Argentine TV kon bu ko defee rek dañuy gën a àgg ci biir gën a xoolaat gaa yi ci biir nan lañ koy dundee dëgg-dëgg moo felle fi fekk naa ci ay mbokk taalibe ñoom it toog nañ jataayu murit euh, li ko waxoon xam ne jataayu murit la lii fair play la kon bu ko defee ñoom it dañ leen laaj dëgg-dëgg nan lañ dundee màggal gi ak berne yi maanaam lan la ñuy yëg dëgg-dëgg ci berne yi ndax li ñuy yëg comme dama koy waxee jamono ju ne kuñ ko yëgalul mënoo ko yëg kon mbokk taalibe nan ngeen di yëgee berne yi jamono ñooy tembe salaamaaleykum mbokk aleykum salaam ñu di ziar bu baax non berne yi wax dëgg yàlla gi moom waaw ah, berne yi neex na lool macha allah waaw instant yi wax yàlla xool sedd na lool xel sedd na lool ci berne yi wax yàlla allah ñu bëggoon a xam mbokki fan ci senegal ak tur bi maa ngi tudd Baye Sall Gueye dëkk Pëleen Dëdd. waaw maa ngi. mbokki taal bi teew a xam dëgg-dëgg yow ñu mën a misaale boo ñu doon photo li nga xam ne mooy bis bi ak ni ko gisee noo ñu mën a misaale bis bi ak euh, tolluwaay bi ni nga ko gisee yow. tolluwaay bi instant yi maa ngi mel ni bu nekk Touba rek parce que moom noonu laa koy dundee quoi dama naan nekk Touba li ma ko gën a ndax parce que fii ñoo ngi jàng xasida comme ni ko sëñ Tuubaa bëggee berne yi rek wax dëgg yàlla sant nañ sëriñ Tuubaa bu baax a baax sëriñ Tuubaa bu baax a baax kon waaw mbokk taalibe bi sànni ci ay kàddu waaw jërëjëf sëriñ Touba jërëjëf sëriñ Touba jaaraama maam Serap Fall tey jii wax dëgg yàlla am na mbégte lool am contentement lool lii mooy waral ne sëriñ Touba li mu waxan ne sant leen leen mamet yi yàlla wax dëgg yàlla murid yëpp ñooy àndandoo di ko sant yàlla ndax tey jii ko ñëw ci saal bi di nga xam ne ñoo bokk nday ñoo bokk bàyyi man daal damay wax ne jërëjëf sëriñ Touba waaw màggal gi nag wax dëgg yàlla ni neex na lool ndaxte wax dëgg yàlla tey bi mu xëyee ba léegi ni ñaa ngi jàng jaa ngi xasida di wax dëgg yàlla di ñaan te loolu lépp wax dëgg yàlla loolu la sëñ bi waxan sant leen ma ci yàlla man daal sama xol seet na ci guddi man nag maa ngi dëkk jogo maa ngi dëkk jogo ci senegal waaw Nanaar Fall taalibe sa sëñ Amdi Xadi Fall kontaan naa nag bu wér a wér yow nag jëwriñ maa ngi lay ñaanal bu heure bi déwénee nga gën cee gis sa bopp ci barke maam Seera Fall ak sa xol seet na guy carrément bu baax a baax kon mbokkum taaliba moom Baye Fall la euh, ci taalibi Cheikh Fall la bokk moom moo ngi jógee ba jogo ñu ngi koy nuyu bu baax di ko siyaareel waa jogo bu baax a baax a baax waaye mbokk taaliba mel na duñu ci yoon ndax lépp lu fi ruuse rek dañ koy ànd ak bëgguñu dara raw ñu macha allah mu mel tamit fii Baye Fall kenn demul ñu des jamono ji nekk yaa ngi gis ñoom nu ñuy xéwloo bu ko defee tamit dañuy dem euh, gën a duggaat ba ci biir xool Baye Fall fee nga xam ne ñoo doon yëngu ci wàllum kuréel gi ñoom tamit ñu wax ñu naka lañ dundee dëgg-dëgg li nga xamante si nii mooy bis bi mu mel fii tamit fekk nañ fi ay Baye Fall yoo xam seen jotaay bi dama naan murite na lool macha allah euh, ñu bëggoon xam Baye Fall yi ak en tant que ay murit saarix ah, salaamaaleykum Lamp Fall ñu ñaanal jàmm di nuyu sa cameraman di rafetlu seen teewaay ci bis bi waa bis bi moom nii rek lañ koy doxale di sant Serigne Touba bu wér di ñaan yàlla def ñu teewee ko ay déwéni déwéni déwén di am kontante ak mbégte wax dëgg yàlla màggal gi moom neex na trop lépp mat na mais lépp dañ koy sant Serigne Touba Serapal rek di leen ñaanal jàmm di ñaan ñu teewee ko ay déwéni déwéni déwén ba di ko man dem di ko màggale ji Sénégal ci barkeb Seydina Mouhamed di ñaan. war a xam Serigne Cheikh moom ñaataat la dala màggale fii nga xam ne mooy Touba Argentine La Plata ak moom bu fekkee tamit li fi daan màggalee ay at yu wute la tey ji nan dunde dundee màggal yu njëkk yi ak ju tey wala moom tey la fi door a màggale. Euh, waaw loolu yàlla def na màggalee gu naa ñeenti màggal mais màggal gu ci ñëw rek ñu ni mooy dàq mais rawatina gi ndax euh, wax dëgg yàlla màggalu ren gi daal gis naa ci lu yéeme programme bi euh, rafet na taxawaay bi rafet na di sant rek te gëm naa ni nag moom mbirum sëriñ Touba la wax tànki kanam rek la am te gëm naa ni bii di ñëw mooy dàq euh, bii ñuy. bii mbokk taal bi wax naan liggéeyal Serigne Touba am na tànki kanam mais amul tànki. waaw comme ni ko doon waxee rek naan Serigne Touba moom. amul tànki ginnaaw tànki kanam rek la am te gëm naa ni képp ku ci jëf ren bu déwénee lu ko raw ngay man ndax man gis naa loolu ci sama jëmm gis ko ci mbooloo met di leen sant di leen gërëm yow di la ñaanal jàmm ci sa teewaay ci liggéey bu rafet bi nga nekkee ci réew mi di la ñaanal suñu borom defal la jàmm xiwal ci barkeb sa yaakaar Cheikh Issa Diène maa ngi lay nuyu di la ziar di ñaanal sa caméraman télé bi nekk ci télé yi raw ci Sénégal ci barkeb Seydina Mouhamed jërëjëf sëñ Naam kontaan nañu baax euh, kon mbokk cameraman mel ni tey ji ñun ñëpp ñoo ko gisandoo ñun ñoo ko ñoo ko déggandoo mel ni baat bi dafa law fépp baat bi benn la mooy li am ci màggalu ren gi musul am waaye nag buñ ci jaaxle ndax Serigne Touba mus naa wax mag ñi ni leen bis bu ma defee 90 euh, ans ci biir suuf danaa manifesté wu bañ xam ne Ahmadou fi nekk tey moo fi nekk ëllëg te Serigne Touba bul fàtte ne màggal gi tey la téeméer at nga xamante ni si ni bii la fi Serigne Touba jógeeg tey ngeen bàyyi xel mel ni Serigne Touba jamono ju nekk comme ni saa ne ana ña doon xeex Serigne Touba ana ña nga xamante ne woon ñoo ne dafa amee ana ñoo xam ne ñoo ne woon yoon wii de tàkk mboob la tey jii seen i sët mën nañ ci seere kon Serigne Touba daal dañ naan gàcce nga alaama kon di gën a jaajëfal ñi nga xamante ne jamono ji ne ñoo ñuy safoo di topp seen télévision Touba Argentine TV jamono ji ne lépp la virus rek danañ ko ànd ak yéen incha ngi leen dox di je tur si kanam rek danañ ànd yu gën a yaatu